ay ay waaw sant rek baa jili maa ngi lay ziar bu baax maa ngi fi de waaw sant rek ñun feetu wuñu ci ndam de waaw ñun ñoo ngi ci liggéey bi saison bi jeexagul waaw ndam li nga mujjee am ci kaw caatu Daouda Fall ñëpp ne woon xale bi da lay gaañ dina la rey nga ñëw génn ci ak jël boo xamante ne da ko daan ak manière nga ni feetu woo non mënuñu ci feetu ay xale te li nekk suñu kanam moo ëpp fuuf. yaa noonu la dana baa jëlee. tey lu la indi fii. waaw lu ñu fi andi. deret moo ñu fi andi ah. muy Saba moom moo xewle. parce que bu ñu xewlee day def déplacement ñëw ci ñun. kon tamit bu xewlee dañu ñëw. ñëw soutenir ko di ko ñaanal tam ndam. waaw. nga dugg géejawaay am ndam. moom mu war a fas yéene dugg géejawaay war a laale xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb muy Mathia Pereira ku ne xam ne daa mën a bëre loo koy yebee nan la mën a bëree combat ba génn. waaw loolu maa moom dañ ci waxoon bi mu ne ma kaw daan aal ma caabi bi te loolu noonu laa ñëwaat joxaat ko ko te bu bëree ba pare nañ ko nangul incha allah comme ni ma nangulee maag caab daaw da faal maa ngi lay bëggee a baax kay. waaw dama voyage woon. maa ngi woon Dubaay jóge fa ñëw Casa. waaw liggéey ñibbi si di waajal combat quoi di xaar combat incha allah. di ñu mën wax maak euh, kii nii maak euh, Thiat Daara Fall ñu mën wax tam maak kii euh, Cheikh Niang bu Thiès. waaw ñu mën Cheikh Niang bu Thiès quoi. koo ci gën a bëgg. non instant yii moom Cheikh Niang bu Thiès laa bëgg a bëggal quoi. non booy moom doy na quoi. boo mel ni booy booy moom doy na. waaye mu xool ci kaw rek waaw incha allah. Feugeuleu tey ñu ñëw fekk la ki nga xamante ne mooy Saba di def open press seen diggante yéen ñaar lan la. waaw Saba moom dafa nekk tout tànk boo xamante ne xale bu yàgg la xale bu baax la ñu bokk dëkk mu jox ñu cër respecté ñu ñu bokkaat tam saal te staff xam nga mu gën a joxe cër te yàlla def mu xew la <laughs> xam nga woo ñu yëgal ñu ko. kon c'est normal ñëw teew ñaanal ko yàlla may ko ndam te incha allah dina am ndam. xam nga ki muy bëre. waaw xay xam naa ki muy bëre baax a baax ma ca xam ci moom. xam naa ko ndaanaan la mën na bëgg benn côté moo jur sax sabaat si làmb xam nga mais moom tam xale la bu nekk si yoon dañ ko wax ne bu demee na tey xeex bëre daan incha allah quoi yàlla may ko ndam. borom 3 secondes 4 secondes 5 secondes nee nga une minute moom doo fa dem. non non. lu tax parce que ay xale lañ tolloo wuñ ci une minute amaguñ 60 ans 10 ans lañ am. maa ngi siyaar ñëpp waa Lutte TV ak gars yi ñu àndal waa jaam gën a xam wasaare lamb ak ñoom iri sama gars yi maa ngi leen di bëggee journaliste yëpp ñoo yéen ñoo far waaw maa leen di tey ma ñëw soutenir suma doomu nday suma lépp muy Saba di ko ñaan yàlla mu may ko ndam ci combat am ak Mathieu ndam bu rëy le 26 incha allah. waaw adversaire bi di ñu jaaxal ndax ci école nga nekk di jàng moom mu nekk école nga nekk di jàng man li ma gëm mooy Saba moo ko doole moo ko bëre ci kàttanu suñu borom te boo Pape Maroon. waaw bébé bëgg naa la. ci loo nekk. maa fi rek. yaa ngi am jàmm. jàmm rek sant la. loo indi fii tey. ah soo waay daal ñoo bëgg écrit quoi. écrit jàmbaar bu yaraax. waaw loolu la quoi loolu moo indi fii. loolu moo waral sama teewaay. waaw am ko koy. ma ca pare boo dàq xeex ci làmb ji. dàq bëre ci làmb ji te combat am du yàgg. non donc man wóor naa ki ma ki ma àndal. Ah. waaw Saba moom champion la. da koy daal jël maa la ko wax. fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey nag bu ngeen gisee ñu ñëw fii seet si xale bi di Saba dafa am bis bu rëy boo xamante ne Jibson production moo ko organisé muy le 26 décembre bii ñu jëm digganteem ak Mathia Pereira Mathia Pereira ndaanaan la ci làmb moom Saba nekk xale boo xamante ni bu jógee tund bi yëpp dañuy jóg ànd ak moom mu waaj combat bi ak ay mbokkam ak ay xaritam ak ay njagañaaleem Saba gannaaw loolu dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi combat bi noo ko waajee. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm samay ñetti waajur. waaw ci li may commencé nag mooy man maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew fii nii. waaw di nuyu borom moto yi borom sareet yi. gars yi mbaam yeeg fas yeeg yëpp bàyyiwuma ci kenn. waaw maa ngi sant ñëpp nag di woo nag waa Dalifor. waa Yaraax. Touba Seras Daaru Salaam Seras waa xàll bi waa garab bi waaw. di woo ñëpp Pikine bàyyiwuma kenn mafia bi yëpp nag. waaw bàyyiwuma kenn daal. sa digganteeg Mathia Pereira. wàccaay bi yàgg na yàggul metti na mettiwul noo ko waajee. waaw sama digganteeg Mathia moom waaj naa ko ak samay mbokk maanaam ñun daal pare nañ le 26 dem jëli ko ñëw lañ wax. Mathia Pereira journée bi mujj. arène nationale la ko bëree ak toujours pere. gis nga combat bi gaaw gi mu gaaw te nee na yow doo yoonam parce que moo la jiitu ci làmb nombre de combat yi mu bëre amaana sax bëree woo ko lan nga koy wax ci lool li ma koy wax mooy man je suis euh, pili pere que toujours pere. waaw waaw je suis pere leer laa ko wax. ah. nan nga fas yéenee jëflanteeg Mathia Pereira. Mathia am na lu ma am na loo xam ne su ma ma ko jëflanteeg moom sax daf may yàpp. dem jëli ko ñëw rek. kese waaw incha allah. waaw moom xamal na ni sénégalais yëpp moo la dàq bëre te bu dee xeex la ñeme woo taxaw koor ak koor samp jaaga xeex moom ma ne ku a bëre ku dàq xeex ku ëpp doole yàlla na ko yàlla may ndam leer laa la wax ku dàq bëre ku xeex ku ëpp doole yàlla na la yàlla may ndam gën a sonn ci làmb yàlla yàlla may ndam waaw xamal nañu géejawaay mer la fanaanoo ndax dañoo am da ngeen amoon bis mag dugg seen diggante diggante caatu Daouda Fall ak Kaaw Gourdin mu am ndam nee na loolu metti woon géejawaay ci yow la koy rectifier dina la dóor ba jébbal la say mbokk xanaa loolu doo ko nam waa yow xam nga wax nga ko nee nga géejawaay mer la fanaanoo fii mooy koñu saba juddu jooy màgg ree bi ñu juddoo dañoo jooy bi ñu màggee dañuy reeloo ñëpp eh, leer laa la wax ci wàllu mobilisation gis nañ mbooloo mi nga xamante ni topp nañu la fas yéene ànd ak yow ci làmb ji te làmb ji léegi dañu gis d'habitude mbëri bu ñu leen daanee ñu damm siège bu ñu daane damm siège lan ngay wax say supporter ci lool non man non violence laa woote non violence la woote ñun sama samay supporter xamuñu violé maanaam ñun non violence lañu woote amul benn ragal incha allah jël ko indi ko rek incha allah waaw ñëpp xam nañ ni arène nationale fi mu nekkee sa diggante ak moom sorewul yaakaar naa ne baat la ak tontu mun ngaa dox sax dem arène nationale ban heure nga fas yéene dem arène nationale ak promoteur bi nga xamante ni dafa jël xaalisam bu bari investir ko ci yéen ñaari mbëri waaw ñun heure bu nekk mun nañ fa fekk arène nationale suñu arène nationale la waaw arène nationale suñu arène nationale la heure bu nekk mun nañ fa fekk mun na yaakaar cinq heures ñu ñëw cinq heures du matin mun na yaakaar dix-sept ñu ñëw cinq heures du matin heure bu nekk mun nañ ko ñëw incha allah toujours déggal Mathia Pereira mu ngi jàkkaarloog yow ngeen fas yéene laal yéen ñaar yan kàddu nga koy mujjee dénk yóbbu ko arène nationale le 26. li ma koy mujjee dénk mooy li mu doon wax ci signature bi bu ñëwee na ko jëfe incha allah. lan la doon wax. du arrière. bu ñëwee na ko jëfe bu mu arrière benn pas ma jàpp ko duma ko dóor ko daan ko daal maanaam incha allah. yeah non combat bi du yàgg ndax su yàggee daf may yab waaw bu du yàgg bu yàggee daf may yab. waaw waaw maa ngi woo nag autorités yi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax waaw maa ngi woo ku ci mel ni Awa Niang Baye Diop Ségéré waaw euh, Abdou juuf prési maa ngi woo ñëpp di wax nag ngeen ñëw jàpp ci man li nekk suñu ginnaaw waaw li nekk suñu ginnaaw ñun attanuñ ko ñoom Pape Maxa ñoom Zo moto waaw mafia mafia bi yëpp borom moto yi borom sareet yi waa Curuba waaw mafia sutura bi waa Las Palmas ñëpp waaw bàyyiwuñ kenn ma fi atu tasaar waaw ñoom Tafa alam daar waaw waa xale bi waa jagardaay denk naa ko yabata ah. yabata léegi xoolal ñoom Malaw ah. maa leen ci woo nag waaw ñoom Malaw maa leen di woo bu baax a baax waa xale bi waa garab gi waa daral bi yëpp maa leen ci woo incha allah bàyyiwuñ ci kenn di leen wax le 26 jot na ba pare. aha yes rendez-vous. rendez-vous le 26. waaw rendez-vous le 26. waaw foogale séeréer koy. maxey simna nuun a paax a paax a paax so xoya nuun ten combat ne le 26 leya nuun ndamtaam koy o ɓiy nuun o ndeɓ nuun no jerbaat nuun ten na xoya nuun le 26 inchallah mi a nderes fo Mathieu waaw xeɗa nuun nu ñaananaam koy um maafin no jam ngat no jam inchallah waaw